jeudi mars yaa ngi noos ah. maa ngi sant yàlla. Babacar tey ma xam naa di nga ko jéggal tey sama baat bi dafa dee mais xam naa gars yi dinañ comprendre. <laughs> da a waaw di leen nuyu ñoom ñëpp ah, di leen ñaanal jàmm di leen wax rek amuñ seen seen fay mhm. saa su nekk rek ñoom ñooy tax xam nga ñuy gën a def ay effort mhm. di leen jox li xew ci réew mi ci ay xibaar mhm. moo xam fu mu mën a xew moo xam ca sport bala làmb jaag football baag politique baag religion baag culture baag lu mu mën a doon rek Equivox pour ñoom la daal tamit dëgg loolu Equivox TV voilà mbokk téléspectateurs yi ñu dem seetaan ni revue des titres daal di leen si waat asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah jeudi mars dañuy ñëw ak yéen ci likaay suñu làmb la ñuy xëy doore ko yëglekaay bi di sunu làmb nag moom tey fi mu xëy kenn génn fenn la maanaam ki nga xam ne ni daal moom mooy la lion de Guédiawaye di Balla gay numéro 2 moo gën a fës tey ci xët wu njëkku yëglekaay bi nga xam ne nii moom moo di sunu làmb mu mel ni kii nag yëglekaay ba lam ñu xëy xam la daal nee na lay am ba des daal ko yebu xaar léegi yàggatul Balla Gaye 2 da ngeen ko gis fa nga xam ne moom mooy INSEPS de Paris la ko waral nag lenn la préparé digganteem ak Bombardier yëglekaay la fas yéene dem rey fa boppam ci wàllum entraînement ci lu jëm ci wàllum boxe ak maanaam lit gëre kook yu mel ni ki noonu xeeti entraînement yoo xalaat daal moom fas na ko fa yéene wuti fa nga xam ne moom mooy INSEPS de Paris ñii moom am nañ ba pare ay combat waaye demaguñu Paris waaye tey moom fañ nar a dem yëglikaay bi xëy na tey wax nu ko muy Garga 2 Mama Lamine ka nga xam ne mooy Fara ak Tyson 2 yëglikaay bi di sunu làmb daal xamal nañu ne tey moom boo sàgganee face à face boo xam ne bu tàng jër bu nar a xat la ñu a def fa nga xam ne moom moo di jë biir Equivox yëglekaay bi di sunu làmb xëy tey ñëw dina wax lu mel ne ki noonu keneen koo xam ne nii moom face à face yi nga xam ne mujj na koo def ci fukki at yii ci ay combat yépp da koo ñàkk presque boo xoolee benn victoire la ca am yëglekaay bi xëy na tey wax nu ko muy Tonnerre bu Pikine maanaam daal yëglekaay bi xëy nañu ñu xamal ne daal soo bëggee dégg dëgg moom fukki at yii ñu génne Tonnerre quatre défaites dañ jot a dajale ak benn ndam sunu làmb xëy tey wax nu ko xamal ba moom soo bëggee dégg dëgg gëj naa génne ngelaw lu tàng buusu ko gars yi maanaam lay génn ci moom fi mu nekk nii moom dafa sedd guy ba mel ni glace sunu làmb moo xëy wax nu ko kii moom tàng jër la def saf xorom lool man a fecc mën a bëre technique lool sunu làmb xëy wax nu ko muy gànja faama ma nga xam ne mu nga jëkk fa nga xam ne moom mu moom moo di ca ñombaato yëglikaay bi xëy na tey wax nu ko tuddel nu ko daal la phénomène da ñombaato maanaam nag wala boog la phénomène di ñombaato la ko waral daal maanaam li simple ba boo ko ca fekkee day yëngu di yëngal ci wàllum fecc ak lu mu mënta doon bëri bay tamit noonu la ko ma ne technique lool moo tax sunu lamb tey xëy tey toppal ñu ko waaye la nga xam ne nii moom fi mu nekk nii bu doon bëri boobu ñuy wax la maanaam état du Sénégal daal maanaam yëglikaay bi daa xëy tey sampo laaj ne lan moo tax état bi di seetaan lamb ji utu ci ay solution ci crise bi nga xam ne moo nekk ci làmb ji seetaan ñu rek bàyyi waa lamb ji seen bopp maanaam làmb delloo fa mu nekkoon sunu làmb xëy tey samp boobu laaj keneen koo xam ne ni moom démb daa xëyoon wala bari ki démb ca France 24 dal ci kaw waa làmb jiñ leen ñoom ñoo wàccoon ci mbedd mi di dóore ak a gaañe ka sànnanteeg police yi ka ko waxoon nag mooy le ministre de la justice di Malick Sall yëglikaay bi daal xëy na tey dalal waa Kaolack ñoom tamit moom mel leen na ko waa Ndakaaru defe rek lañ ko defe xëy nañ jël seen wàll ci nar de la justice xamal nañ ko ne nag la mu wax du ay ndax kilifa gu ñu dénk yoonu am réew yaakaar naa ne waroo di waxee noonu ci wax joo xam ne la ngay wax bokku ak la am du samay wax nag waa Kaolack ñoo mer ñoom ba wax la nga xam ne nii mooy wax ja Malick Sall yëglikaay baa xëy ñëw tey moom sunu làmb xëy dina ko xamal leneen loo xam ne wala beneen yëglikaay boo xam ne dañ fay dem muy record record moom ka xëy di wax wala ñu xëy di waxante ñaar lanu ka njëkk wax nag mooy Bombardier moom daal la mu xamal ka nga xam ne mooy adversaire am ba nga xam ne moo dëkk ca ne na ko yóbbu doon sukki boo yeboo nga préparé wu ndax li am ba des moom danaa la duma daan la wan la ne man duma sa morom sa waay ne ko daal yow it Ousmane day moom Podolski maanaam tontu du forox la defal Bombardier ndax tontu na ko ne na ko Ousmane boo yeboo yow tam daal xamal ne maa ngi lay xaar bu baax a baax a baax a baax comme ne nga danga may duma Podolski daal ne na Ousmane lay xaar yëglikaay bi di record a xëy ñëw wax nu ko keneen koo xam ne ni moom mu ngay préparé wu di xaar muy rëg-rëg ca MMA ba moom daal xëy na tey yëglikaay bi wan ñu ko rëg daal la mu xamle ne na fi mu nekk nii moom mu ngi si jàmmam di préparé bu baax a baax a baax ci condition yoo xam ne yu mucc ayib la di préparé combat ba nga xam ne nii moo jëm ca MMA ba waaye li jara bàyyi xel daal mooy tey moom jàppal face à face bi ci biir Equivox du mën a ñàkk ndax ku ne xam nga ne tournoi wu C5 ba moom ñenn ko tëgg muy waa Vox naa fan lañ koy defee jàkkaarloo ba tey fii nga xam ne moom mooy ci biir Equivox Mama Lamine Garga numéro 2 Tyson 2 Franc waaye duñ ca yem Baye Mandione Senior Fourier bu Grand waaye waaye ñu ca de alias Biram bu Bawal ak ka nga xam ne nii moom moo di caatu ngewel ka nga xam ne nii moo di moustique bu caaroy ak ka nga xam ne moo di noiro lii daal la waa Vox Arena andil askanu làmb fas yéene nag tey teg mbër yooyu wanale leen ak publiku Sénégal ak publiku làmb kon daal olof a ko wax ku yokkul yaa wàññi te daa wel ni waa Vox naa moom loo ci mën a dégg ñëw nañ ngir yokk kon daal li ñuy ñaan mooy loolu ñu dugg yal nañ ko daan ak jàmm waaye di ñaanal bépp promoteur bu dugg ci làmb yal na nga daan la nga dugg ndax làmb nag suñu cosaan la. voilà mu nekkoon revue des titres Babacar journal suñu làmb daal di ñëw ak ñun nag ci xëtam bu njëkk tey mhm. ci ki nga xam ne moo di Balla Gaye 2 moom daal bientôt dinañ ko gis fi nga xam ne moo di INSEP bu bu pari mhm. di waajal rek li nga xam ne moo di ko mbaam bi ci côté boxe beeg lit grégo beeg yépp waaw mu mel ni de bientôt suñ ko déggee mooy lu yàggatul mhm. tuuti si yàggatul dara waaw defe naa nag comme combat ak moom ñu ngi xalaat ñu bëri ko ay côté mois de juin yu mel ni kii mm-hmm. noonu te defe naa ne dafay jaadu tey bu mm-hmm. demee INSEPS parce que bi muy bëri ak Modou Lo ku ne xam ne fa la préparé ji yoon mm-hmm. kon defe naa ne am na lu mu fa gis ba tax mu bëgg fa démarrer wala stafam waaw yaakaar naa nag foofu bu fa demee moom foofu foofu moom yaa lépp am na fa INSEPS de Paris comme ni ñu ko xamee wàllum bëree wàllum lit gréco bi wàllum boxe lépp nga fa am mel ni centre boo xam ne daal yaakaar naa ne bëri na sportif yoo xam ne tey ci bi danañ fay dugg fa yokk seen xam xam-xam dafa yokku seen doole defe naa ne tamit moom xëy na loolu la ci jublu parce que tamit daal dëgmal bés boo xam ne wax dëgg yàlla bés bu diis la parce que dafa bëri ak Bombardier Bombardier daan ko mhm. te ku ne xam na ne bëree mbër mu daan la la ngay bëgg mooy su ngeen di revanche nga fayu mhm. yaakaar naa kon moo waral tax moom muy waajal pour dem mhm. dara voilà waaw tey incha allah fii ci biir biir Equivox mhm. mel ni foofu Vox Arena ñoo fa jaar ñu ngi leen di nuyu di leen jaar mhm. bu ñu nee Vox Arena nag ci groupe bu la bokk di mhm. benn label boo xam ne buy def ay organisation la ci wàllum ay euh, lu mu ti doon moo xam sport la ak culture ak lu mu mën a doon daal waaw muy label bu ama am solo boo xam ne bi mu ñëwee tamit ah ci muy organiser lamb bokk na ci mu organiser ay combat yoo xam ne defe naa ne ay combat faar la ndax defe naa tey amateuru lamb boo ne gargade ak ki nga xam ne moom mooy euh, Mama Lamine ah xam na ne boobu combat combat du ko dàq. kay daan kay la ñuy wër. ñu ne la Tyson 2 franc. kazalika naka noonu dañ ñoon ndax boobu combat mën naa ne waa Vox Arena fexe ba mu ne kon defe naa tey bu ñu waree mbër yooyu ak yeneen combat aju mhm. euh, public la ñu ñu ngi ñaan yàlla daal ñu dugg ci ak bismillah uh-huh. ndox mu sedd bu ñu jógee foofu tonnerre ñu koy dàkkontale nga xam ne moo di dragon rouge mhm. moom nag ci 10 ans yoo xam ne benn victoire la am 4 défaites waaw muy lu metti muy lu metti ci mbër boo xam ne wax dëgg yàlla bi mu nekkee ci làmb débuté carrière ba ci kaw gis na muy wane lu doy doy waar ci bëri ci xeex ci arñi mais nag dem nañ ba benn moment gis que ni moom am na benn contre performance bu doy waar mhm. yaa ngi dégg di ñàkk ay combat ci ñàkkin yoo xam ne yu yéeme yéeme la mhm. defe naa boo xoolee yëglikaay bu bu toppee pendant dix an boo xoolee lim ci bëri sax bëriwul kon da ngay gis ne cinq combat cinq mhm. combat la voilà ci dix ans mu am si lan quatre quatre défaites euh, mhm, ak benn victoire kon moo lay wan ne kon actuellement wax dëgg yàlla mbiram doxatul mhm. waaye nag li am solo mooy fexe na ba défaites yooyu mu teglante woon bi mhm. muy mujj bëri ndam la am mu diggante ak Tidiane Faye waaw moom moo mujj kon defe naa loolu dina defaraat moralam ba nga xam ne bu ñëwaatee si làmb dina bokkaat parce que mbër la mu nga xam ne wax dëgg yàlla du mën mu ndaw par rapport ak bien sûr tonnerre non tonnerre mbër la macha allah la waaw voilà urgence euh, jusqu'à présent ci solution bi maanaam ay solution mais mu mel ni état d'urgence bi tamit dinañ ko arrêté euh, le mars nga yaakaar ne duñ ci indi ay saafara ah waaw a indi ay saafara parce que damay wax que ni làmb moom état daf ci war a joxe ay solution mhm. ndax loo xam ne la ciy la ciy yëngu di ca tedd mhm. ay milliers de milliers de personnes la mhm. loolu ci am réew deesu ko foyee loolu defe naa état bu jiite am réew loolu da ko war a jël en compte la nga xam ne mooy seen ay besoin mhm. nga di ko jéem waxtaan ak ñoom di ko teg ci aw yoon pour ñoom seen mbir di mën a dox mhm. muy làmb jaag football ba parce que man du ma wax làmb kese lu mu ci mën a doon rek mhm. te ay nit di ko def Sénégal te muy indi koom-koom di suqali réew mi te làmb dafa bokk ci loolu defe naa kon defe naa état d'urgence bu ña day jeex la 19 parce que état du Sénégal xëy na am na loo xam ne tey euh, ñuy conseil Macky Sall duñ ne waxuñu ko li ñu ko war a wax mais ñun am nañ droit nekk xëy na am na loo xam ne à 100 pour cent duñ ko ko yeggee parce que gis nga ci coow li ngi fi gis bëri ki dem bu mu indi fii problème gis nga lu ko gën a provoqué bokk na ci couvre-feu boo xam ne atum yàlla la mhm. yaa ngi dégg nit ñëpp braqué seen bët yi ci télévision yi di déglu ay débat politique rek chaque jour loolu nag dem na dem dem dem ba nit ñi amatuñu fu ñu loisiré du muy làmb jaag football baag handball baag ñëpp dem ba loolu metti xolu nit ñi mm-hmm. benn occasion présenté wu ñu exploité ko muy l'occasion de Ousmane Sonko moo lay wan ne kon defe naa loisir ci am réew ak lu man a xew war na xool nees koy gérer ba nit ñi ko mën a def yaa ngi dégg defe naa kon couvre bu eh, jeexee waaw riirum làmb fay na lu nekk waaw ah yow Balla Gaye Modou Lo ñu bëri wala Eumeu Sène <laughs> yow yow riir boobu fay na lu nekk loolu loolu loolu xoolee na xare rek moo tax coow li bëri kenn dina ko am di ko fooye mm-hmm, làmb nañ gën a joxaat cëram mm-hmm. moo gën ñu di leen jiiñ yenn yoo xam ne bokkul ak làmb waaw dëgg la ba tey rek ñu dem ba Ndiombato fekk fa ka nga xam ne nag moo di Ganja Fama mu nekk phénomène boo xam ne nag foo ko cuqu rek fekk ko fa. waaw kooku day ami maa ko xam ndax li tax ma ne maa ko xam mi xam na li may wax. Mhm. fekk nañ ko ci tournoi yi mhm. mu nekk xale boo xam ne macha allah. Mhm. dafa yem gàtt la def. mais boo ko gisee xam ne mbër la. saf xoromam mën a bëreem. te ni ko yëglikaay bi waxee noonu la mel ci biir làmb. làmb simple bu ci duggee ah da koy yëngu di ko yëngal ba ba muy. jeex daa am waaw moom yàllaa ko may xorom mën a fecc lool. xorom ci a <laughs> bëre lool. nag xale boo xam ne phénomène la waa lamb simple tamit bëgg ko. Mm. muy koo xam ne mu nga dëkk Njombaatu ñu naan ko Bitenti dëkk bu ñu ne dëkk boobu la dëkk. mu ci profité du nuyu ki nga xam ne moo ko yore muy Insa Seydi mm-hmm. muy xale boo xam ne macha allah daal am na avenir u lamb moom Gandia Fama. Mm-hmm. mu ciy nuyu waa Bitenti waa Njombaatu yëpp daal. Mm-hmm. Uh-huh. ba tey rek ci. Euh, ministre Malick Sall ministre de la justice ci mbir mi mu àddu woon rek fële ca France 24. Mhm. mu mel ni nag euh, bërekat ya nekk Kaolack jël nañ seen seen wàll ci mbir mi. <laughs> waaw waaw parce que <laughs> wane seen mer. <laughs> waaw parce comme waa làmb la wax. te Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar defe naa kon lu metti Ndakaaru day bu bet bu bopp mettee Dakar. day laal Kaolack laal Diourbel laal Fatick laal loolooy Sénégal loolooy Sénégal mooy ma ne su koo xar <laughs> waaw moom nag damaa yaakaar ne xëy na la mu wax da koo maîtriser wul moo tax mu wax ko waaye wax dëgg yàlla wax jooju moom nekkul wax joo xam ne sax wa kilifa war na ko yëkkati di ko wax mhm. parce que nag defe naa ne tey Sénégal bu ni ay nit génnee am leen metti di ko manifester mhm. defe naa yow muy autorité bi jiite leen mhm. jéem a xam la leen metti moo ëpp solo kani ngay koy accuser ñenn te waa làmb dañu dépassé foofu président ma Macky Sall nag man kër sama kàddu gu ndaw gi maa ngi koy wax ne ko na xoolaat ñi ko wër mhm. man maa ngi ko koy wax man en tant que sénégalais bu bokku ci réew mi mhm. di voter na xool ñi ko wër xool ñiy wax ci turam parce que tamit moom bi muy jël réew mi liggéey moo ko yëkkati woon pour man parce que yàq Sénégal yëkkatiwu ko mhm. mais di nga dem ba benn moment ami ay nit dinañ la wër ngir seen bopp te bu yàggee ba yàgg lañ fay nekk moo nekkee mooy seen wala ñuy wax Euh, di di wax wax yoo xam ne daal sam waay na ma yàlla jéggal daal te loolu <laughs> yàqal kilifa gi la quoi wax jafe wax euh, voilà nañ xoolaat mbir yi liñ naan bal la bu xesee ba génn rek ah, waaw jeex na moo tax Cheikh Abdoulaye Mbacké noonu na mhm. ñett a yàq réew mhm. maanaam ki nga xam ne laajee su ko te muy wax mhm. ki xam li mu war a wax wax ko ba xam-xamam jeex te mu doon noppi ak ki nga xam ne xamul tey day wax te na day wax waaw dafa bëri nag Sénégal lay fi nekk nii yal nañ si yàlla musal amiin voilà yooyu la information suñu làmb ñoo ko fësaloon ñu jàll rek ci journal record moom nag euh, ñëw na ci ñun ci combat MMA ki nga xam ne moo di bombardier ak euh, polonais bi di euh, Pudziano moom nag bombardier mu ngi koy dànkaaf nee na ko daal pare naa pour daan la waaye ki nga xam ne moo di polonais bi moom it ko dara Frappard ak tontu ah, nag fii nee na ko ah, musu fi naa nee ñeex. maa ngi lay xaar Ousmane Bombardier moom lañu ne dinaa <laughs> fi naa nee ñeex mu ne ko maa lay xaar Ousmane. <laughs> muy combat boo xam ne ca Pologne la war a amee. Mhm. ñoom ñaar muy combat MMA ñu ñaanal Bombardier nag ndam. Mhm. waa Pologne moom mënut a wax ban faral ko. vraiment <laughs> moom Bombardier lañ faral. kon yàlla na ko Bombardier duma daan ko. Mhm. waaye nag xam naa du yomb ndax Pologne bii ma gis itam néew doole. te na kàttan mhm. mm, mu mel ni du mag tamit. ah déet yi kay xale la. waaw ah, xale la bu magit daal contrairement ak ka daje woon ak rëg rëg. waaw waaw ngalani. ngalani waaw ngalani di ragaloon nañ ko waaye rëg mën na ko jaarale. <laughs> rëg rek moom itam mu mel ni mi ngay préparé la nga xam ne moo di combat am. waaw dana mu ci condition yu baax loolu defe naa alhamdulilah athlète moom bu nee si condition yu baax ami da koy dalal da koy may xel bu dal ba tax na yaakaar naa bu nee ci condition yooyu. Mhm. defe naa ne li ñu koy ñaan moom tamit combat moo mu dugg ci gañe ko rek loolu lañ koy ñaan mu rëg-rëg voilà loolu record moo ko fësaloon sant rek gërëm rek ñaanal ñëpp jàmm. Mhm. di wax que ni téléspectateurs yi comme ni ma ko ubbee rek amuñu seen fay yàlla na leen yàlla fay. Mhm. di nuyu l' international Saliou Ciss ndax blouson bi ma sol nii moom moo ma ko jox. Mhm. ah latéral gauche nationale maa ngi koy bëgg bu baax a baax di football fële ca AS Nancy Lorraine maa ngi koy di nuyu ay mbokkam yëpp rawatina waa. Euh, Médina bi nga xam ne fa la dëkk ah ak waa Xolpa di benn dëkku séréer bu nekk fii nga xam ne moom mooy ci côté jas bi mhm. di nuyu séréer saafeen yépp waaw moom mooy suma rakk di suma xarit spectateur du ñoom naa ba démb nit ne ma ami gisuñu de lu xew ah, man ak man commencé naa am soppi ci ah, làmb ji noonu la demee waa làmb mel noonu <laughs> ami làmb la waa làmb ñi fa nekk a baax dëgg la mbër ya dañoo baax arbitre baax ña koy seetaan baax ña koy organiser baax mhm. làmb nit ku ña fa nekk ñëpp ay nit yu baax rek fa nekk lay xam nga nga nga seq ak ñoom ñoo fi dàq sot mm-hmm. kon di ñaan jàmm di nuyu waa technique bi du mën a ñàkk ku mel ni yàgg maar mu Cheikh Béthio Thioune mu Serigne Saliou borom liberté 4 waaye gomis Ndiago Bamba moom tamit di ko nuyu bu baax a baax di nuyu téléspectateurs yëpp di nuyu équipe technique wu Equivox euh, yëpp daal mm-hmm. rawati nag Habib moom mention spéciale wax dëgg yàlla parce que li gën a jafe lay def mm-hmm. di liggéey te du wax doo dégg baatam te chaque instant yaa ngi koy gis muy liggéey di organiser ni ñuy toogee ni ñuy taxawee lépp kon Habib Seck yàlla na la yàlla fay wax dëgg yàlla vraiment daal nit ku baax nga daal maa ngi lay ñaanal yàlla daal yàlla defal la ci àddina lu kawe sa njoon barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yow tamit tey afasan nga macha allah tey moom tey moom aj na ko ba mu aju sa baa baax na sa sa sa oo baax na tàmm naa yooyu ci yow ku la yor fan yi ay door la tàmm naa yooyu ci yow waaw dafa feres mhm. voilà jërë ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi fii la daal di yem ak yéen ci xibaar yi tey di leen jox dig daje rek